jëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV mbokk yi football dafa am ñu ko man waaye football dafa am ñu ko war a jëfee dofu maam xalifa la marabout de Ousmane Sonko tey nee na ma dinaa jug ngir sama réew Sénégal Équateur ku ne xam na ne moom lay am mu ne ma Aliou lañuy jël classé ci joueur yi waa Équateur la ko dalee góol ba attaque ba mile ba défenseur def li ñuy def jël Aliou ji am nañu ko def jour yooyu waxuma la match bii mais beneen match sax dootuñu dox loole danañ ci dugg mu wax ñu nan la koy defee kon topp leen ñu danañ waxtaanee njariñ danañ waxtaanee ñaan yàlla sëriñ bi nee na ma am na ñu ne ci internet bi naan ay sëriñ lañ te ñooñee waruñoo ñaan dinaa ko laaj ñoo ne ñan la nee na ma ki taxaw devant le public saaga ne sëriñ la dinaa ko jëflante ak moom ba mu xam ne doomu daara du saaga tey danañ waxtaanee njariñ mais laata loolu dañuy bàyyi Serigne Cheikh Tidiane Niass dofu maam xalifa mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi Serigne bi ñoo ngi lay rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin mbokki Sénégal mbokki àdduna ki war a wax mooy wax ñi warta wax bu ñu waxee ba pare ki war a wax buy wax ñi warta wax dañuy déglu yàlla dafa dogal ca dogalam nga mu xotti ca qudratu ilaahim am ñu may ca may googee mu génn ci lan faalun lima yurid dara safuma waaye nag indi zalika fadla yuti man yashaaw maay jël ngëneel dott ko ci ku ma neex bu jëlee ngëneel dott ko ci ki nga xam ne warta wax muy wax dana wax balaal aw taatam na ma ngeen jëgal ma ci kàddu gi ne wii mooma ko waaye nag ñi war a wax buñ noppee danañ bàyyi ñi warta wax wax ba sànq askan bi loolu moo dal askanu Sénégal jamono ji dafa dem ba languk sëriñ waaw ñaan ëpp ñii ñaan lu si benn d'abord eh. ñi ñaan na dañuy ñaan ñoo ëpp ñuy ñaanlu si. da bëgg wax ne sëriñ dañoo. may ma tudd alaaji dégg dafa am lu ma bëgg ñu leeral. ñi war a xam seen bopp xam seen bopp. ñi warta xam seen bopp ñàkk xam seen bopp. ñu war a dem defi leneen dem defi leneen. parce que langu sëriñ dafa am ñett léegi. dafa am benn soos boo xam ne dafa dafa dañuy wax wiraasa maanaam ndono la. ndono gi nag. ñëpp ci lañ bokk waaye nag ci kaw nga sante ca Mbàkke wala ñes wala si wala Haydara wala yu noona ñooñu ñëpp dëppoo nañ seen maam seen i maam ay lañ leen xamee woon xamee wuñ woon lu dul ñaan yàlla faj soxlay jàmm ñi uh-huh. am ñoo xam ne nag zalika fadlaa yi man shaa moo ci ñoom mooy lan mooy dañoo dem jàngi ba yàlla jël ngëneel dott ko ci seen kaw ngir ñu faj soxla yi waaye ñooñu duñ tëgg duñ fecc duñ dugg ci luñ warta dugg duñ dugg ci affaire euh, xërëm ak yu kenn xamut duñ ci dugg maam yi bawuñ fi woon ay xërëm bawuñ fi woon sotti ay deret bawuñ fi woon yu mel noona koo gis mu commencé loola nar koo continuer ci ay caaxaan du am mujj gu rafet yow mii daa am koy waxal ma xumaa kenn damay wax pour damay wax pour képp koo xam ne yaa ngi ci xërëm nga bokk dem ci li fi maam ñi bawoon maam ñi bawuñ ñaara ngi noonu. Mhm. ñetteel ba mooy. Mhm. jamono ji ku la dàq kàcc. nga ne ma kii la. Eh. Sénégal day fubal fii li day xew fii li nangam fii maam moom bii bi waa ana inna allah yàlla ma xayba samaawaati wal ard ki moom asamaanu juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar di dogal lu ko neex ana kooka. ana borom dogal yi. Euh, sëriñ sañ ta dogu sañ ta tëkku tëkku mooy nit tooñ la nga ko da ngay dee suba suba déedéet mhm. ne nga ko yow baax na danaa jëflante ak yow incha allah mhm. boo la ci incha allah nga dem jëflante moom yàlla fekk si la mhm. sëriñ sañ ta dogu mooy day am par force heure bu ko waxee yàlla ne ko ay kaay Mouhamad waxoon ne ne bu subaa ngeen ñëwee ma wax leen ko gaa yi di ko reetaan ba mu ne ko boo ëllëgee del wax incha allah waaye képp koo xam ne maanaam moo la dàq kàcc nag moo la gën a mën a ñeme toogaat ci internet te naan waxuma woon lii li laa waxaat li nangam li nangam nañuy wottandiku di wax ci loo xam ne xamuñ ko dafa am ko seytaane di indil am ku yàlla di wan ki seytaane di indil toujours da lay jax-jaxal ngay wax loo xam ne yaakaar nga ne maanaam mooy am fekk doo am ki yàlla di indil nag heure bu la indilee bu dee fukk la juróom ya lañ la may droit nga wax bu la fukk yëpp uh-huh. ñun ci ñooñ lañ mel mooy lan mooy bañ jugee bañ déggee ne am na ñu jug di di wax ci réew euh, équipe bi. Uh-huh. ñu ne leen def leen ndànk <coughs> waxu football dama ne woon alaaji dégg du ma ci wax dama koy tegee na le uh-huh. ndax jamono bii képp ku bëgg am bës ci sëriñ si football nga koy nga koy jaare pour am bës. équipe bi danañ ko dóor deux wala dana dóor deux dana dóor trois dana dóor nangam maanaam boo dajale woon sëriñ si wax lool yëpp yóbbu leen vaar bu subaa ñoom ñooy ñëwaat trente ministre nangam ma ñaanoon nag diw moomu dugal ak xaalis diggante beeg nangam maam seen caaxaan yooyu ko arrêté. sëriñ duñ ko xamee ci wax lu ñëwagul sëriñ lañ koy xamee mooy faj soxlaay jàmm bi wax lu ñëwagul mooy lan wax lu ñëwagul mooy lan jinn moo a dàq wax lu ñëwagul waaye xamul lim fanaanoo démb day fàtte xamul lim reere démb mbokk laaja fàtte na ko kon nañ génn ci seen yooyu noonu gis nga Sénégal fu ñu dajeek Équateur Équateur sëñ bi bul dugg foofu <coughs> bul dugg foofu eh, xamala moo tax dimbale ma rek sama mais kon duñu waxtaanee kaddu kër gi. Ah, ah, yëf yi dëkkal na ma boo ma bàyyi rek day dem. duñu duñu waxtaanee kaddu kër gi. Sénégal di ëppal na ma loolu may ma tuuti. ministre des sports. Uh-huh. maa ngi lay xamal ne la. Uh-huh. ba muy ñetti yoon. na ma dégg te déglu ma. allahu akbar. ala del turu Sénégal. Uh-huh. dafa lay jox 401. na nga génne 401 saakoy gerte. 401 saa koy gerte gerte mbaam yi laa wax bu ñu ne mbaam nag boo demee ci àll ba. bu kemb wala bukki kembi lan gerte xottu ngaan lan. Ah. dañoo yaakaar te yaakaar gi dafa féetoo suuf. mag ñi xam nañ li may wax ni de. Ah. nañ génne 401 saa koy gerte ñu xool ñu néew doole ñi. ñu dem ci àll bi xool ñi nga xam ne dépasse tey bu ko amee amuñ bu suba. Ah, ñu séddale leen ko jox leen ko. jox jirim ñi liñ moom. wàññi dund gi. waaye nag ñi ci kaw yërëm ñi ci suuf. Mm. incha allah lii bu ko defee Sénégal yàlla mën ma na mm. waaye tant que lii ah lambaay mën naa ñaaw. sarax bi gerte la nañ ko def. bu fekkee ministre sport defu ko sénégalais bu ne ñu ngi lay ñaan ci biiru ma ci jouru match bi na nga génn kilo gerte kem kilo gerte euh, xottu gu tooy. nga sarax ko néew gi doole. boo amee ñaar téeméer nga tegaale ko ca. gis nga loolu bu ko defee. ba ma waxee final ba pomme yu verte fu ma ko waxee woon fii. ñu bëri di may leen final bi nañ def pomme yu verte yàlla dinañu may ndam incha allah. ñëpp di retaan waaye bañ xëyee lu mat juróom fukki nit wala lu ko ëpp publié nañ seeni i pom ne ma sëñ Cheikh def nañ ko pomme verte kon maa ngi ñaan bu fekkee Sénégal bëgg nañ ko ku ci nekk na nga génne kilo kilo gerte xott teg ci mille francs jox ko ku ko yeeyoo ñu xool sëñ Cheikh def lim daan def ci aliwo ji gis nga alaaji dégg sama rajo bi laa gis am na ay secret yoo xam ne ci wàllu xëccoo rek la ko def. xëccoo xëccoo dafa yaatu na xëccoo la ko def ci wàllu xëccoo yee mu def ko. ba ci sax xëccoo la. ñun de suñu réew ëppal nañu. yéen da ngeen xëccoo après. waaw déglu rek ñun suñu réew ëppal nañu. bul wi suñu réew ëppal nañu. ñu dem. ñu génn suñuy sarax def. génn suñu ñaan def. génn su xanaa xamoo am na xawaatim goo xam ne boo ko daggee tey ci Aliou nii. xool zóor ya nga soxla. ut suufu bàmmeel takk ko ca. bind la ngay bind. ca daawu suukar ci Aliou ji. jël suufu bàmmeel ba raatale ko raatale ko ba mu wu nga fomp ko ba set nga jël ko yóbbu ko ci digg si sale bayoon suuf si suuf soosee sóor yooyee ba ilaa yom din duñ baaxati lañ ma waa nawetaan yi ni ci àll Saalum bi waru def lii waa Équateur ah ay doomu jàmbur lañ loolu bakkan xañ na ci bu njëkk bañ ko daan def bu njëkk bañ ko daan def booba euh, fukki de senes moo ñu jàppoon waaye léegi suñ dëggante suñu borom la ñu gën a xool ci alal ay mag ngeen léegi buñ dut mag it nañ ko te bàmmeel jege na ñuy xool suñ diggante suñu borom amuñ ci lenn lu ñaaw waaye lépp lu ci rafet dañoo pare pour gën ko rafetal kon maa ngi xamal suñ mbokki sëriñ si ne leen nañ dimbale nit ñi nañ yem moomuñu réseaux sociaux yi moomuñu internet yi kenn ku ci nekk di jug di tëlli tëlli di wax mel ni yow yow maanaam yow la yàlla jox ndogal yi te yow la nga reeree sax bu ñu la ko fàtte nga ko nañ arrêté loolu suñ mbokk yi nag ñoo um équipe bi ñoo um équipe bi lii moo am ñun ñoo um équipe bi barke al moo am ñoo um équipe Sénégal moo am ñun ñoo um équipe bi ku ci nekk la nga man na nga joxe sarax yooyee tey course ñaan waaye maa mam victoire bi maa koy xëccoo ki naan may nangam waaw ana yàlla ana yàlla mi nga xam ne moo la bind moom sa bakkan léegi xëccoo xëccoo ak yàlla sa ruux gi yow bu mawtu ñëwee xëccoo ak mawtu sa ruux gi bu fekkee yaa xëccoo yàlla victoire bi nañ génn seen caaxaan caaxaan yi ñu dem teewu kurus ñaan yàlla maa ngi digle ah. képp koo xam ne sëriñ nga. waaw na nga tee dog bii may joxe. dog bi dog bi mooy asbunallahu ni'mal wakil. asbunallahu ni'mal wakil 401 moom it. 401 un yi ngay def def 400 yi. bu ñu suba la màcc bi. Mm-hmm. lañ koy def ci guddi bu marax jotee maanaam bu bu jant bi duggee. weer wi génn. nañ ko def sénégalais bu ne am pastef ci réewam. Mm-hmm. na jël 401 un yi def 400 yi. tawakkul suñu borom ne ko maa ngi lay ñaan yàlla nga kattanal Sénégal ci kaw équipe bi ñu dajeeg ba mu mën a ko incha allah ci kattanu yàlla président lu may ànd deeg ànd deeg moom wax na ko ñu mën a ñaan nañ ñaan ñu mën a xambu xambu ñu mën a ñu mën a euh, supporter supporter ñu mën a wax wax waaye nag ñi mën a yàq nañ tee seen i yàq soxlawuñ ko ñi mën a yàq nañ tee seen i yàq beneen ba ci des Aliou bu say bët baaxut bu ñu yàpp Aliou Cissé yow la ñuy wax ak bu fekkee say bët baaxut bu ñu yàpp bu ñu fontoo ñun mënuñoo tee suñuy kurus di ñaan ñaan dafa am lu koy dimbali gis nga ahab mbër bu ngeem boobay bëgg a dee am sëriñ bu dàq ñaan te amul entraînement bu àggee bu ñu ko dóoree moo tooñ boobu sëriñ bi dóoru ko équipe bu amee équipe bu baax tegoo ko sëriñ yi di ñaan nga teg équipe bu baax bi ca bamba yaa tooñ yaa tooñ ñëpp man aw ma jot seetaan benn équipe waaye Sénégal moom dama koy seetaan client bu ma man bañ naa eh, bi match bi passé sama soxna dama doon ree dafa am ku ma ma xool ko Euh, bi Sénégal bi Sénégal ma ne ma ne ma xool ma xool ma xool kii bi muy 77 nangam nangam ma ne ko ma uyu ko ne ko yow xanaa doo sénégalais. mu mm-hmm. ne ma eh, bi dama soxla ma ne ko teel sa soxla ba Sénégal football ba pare. Sénégal buy football waroo woote xanaa doo sénégalais ñaan la Sénégal mu gagné. loolu mooy bëgg sa réew. Mm-hmm. kon nañ jiima a ëlbatik yëf yi. Mm-hmm. sëriñ si ndamu ñu xam na ndamu bi moo ñuy yàqal. yoruñ tus xamuñ dara yàlla moo xam lépp mooy joxe ndam yàlla nañu ko jox. képp kuy ñaan na nga ñaanee noonu képp ku am sarax yooyu joxe bul santaas kenn na nga sarax yi wax ko man dama ne woon sa jëlbeen nga ne du ñaan ndax li tax du ñaan mooy dañ maa dañ maanaam da nga leen ba ca biir waaye ba demee ba ca biir sama xaatir yeey na mooy lan mooy yow dimbale woo ministre sa bopp ngay dimbale ndax wituwaar bi bu ñëwee say soxna yuuxoo say doom yuuxoo say taalibe yuuxoo yow far yuuxoo kon ñaanalal réew mi réew mi gagné ñu bàyyi seen caaxaan yi nañ arrêté seen yii nii maa ngi wax nag procureur de la république laay wax lii nag ñi mu war njëkk a jàpp mooy ñii taxaw toujours di um équipe bi di xaacur naan nangam muy man mii di ko wax man Cheikh Niass ak keneen ak keneen ñun ñooñu lañ njëkk a war a téye nañu ub leen seen gémmiñ ci affaire équipe bi. bu ngeen ci mën ta wax lu baax bu ci kenn wax ci lu bon. bu ci kenn sandasi si kenn mayatuñ kenn mu ciy wax nangam nag ñëpp génn ku ci man a ñaan na nga génn ñaan jox ay dog buñ la gëmee baax na buñ la gëmul baax na. waaye li yooxaloo jigéen ñi nag bokk na ci sa butéel bi nga xamante ni mooy kaddu kër gi butéel bi nga ne sëy rek moo ko tax a jóg. Eh, kii alaaj Medoune dama la koy wax ñetti yoon Médoune taqale ma ak alaaji dégg daaj waxoon naa ko fi naa ko fi waxaat barki biig def na njombe billaahi wal kitaabi defati nañ defati na sax laay wax dëgg maa ngi lay ñaan yàlla tax alaaji dégg waa léegi man maa moom sama garab yow yaa moom sa micro yaa may laaj ku loo oowati nee ko micro bi rek laa moom diw moom moom garabam oo ko numéro téléphone am yaa ngi dana la ko wax mooy yooyu tàpp ci impro dog dégg baal jollu ah, dañ fi mag de dañ fi rey mag te billahi mag mu fi am problème ñëw ne ma nangam buñ buñ ma indilee kayit gi maa ngi dama la koy indil. mais bitel bi kenn du ko jolu dégg baal jolu mi baal jolu mi kii duñ ci passé kaasu ataaya. kaas benn kaasu ataaya ko ci passé dégg. benn kaasu ataaya duñ ko ci passé ba mu ñetti yoon. mais expliqué ñaata yoon ñaata yoon dégg damaa wax ba sonn. dégg kii duñ ci passé benn kaasu ataaya. moo tax daa taxaw wàccul. kii lii ko ko jolu yow moom mu sey wàllam sëy yow baax na école yi jàngale yooyu moom lañ la waroon yóbbu nga fay defee reportage yow moom wàllam sëy bu ci kilifa yi duggee da ngay xalaabal ràjj toog moom. mais sëñ bi expliqué la biseel gi mu leer ci bopp nit ñi parce que client yu bëri dañ ma ko wax naan ma ah, garab gi boo ko jëndee da war naan rek ba sa biir fees man noonu laa ko déggee moo tax des fois wooye ma nit wooyee noonu laa ko expliqué. yow lii lii bu fekkoon ne da mar dëgg rek xanaa benn minute nga koy naan mu jeex. kii ba client yéen ñi koy jëfandikoo. Uh-huh. bu leen déglu alaaji dégg dégli leen ma man mi nga xam ne maa composé sama garab. Uh-huh. kenn du ci passé benn kaas. mooy borom 30 minutes yi. moo lay fekk 5 minutes yóbbu la 30 minutes yéegal of taf du la wàcce. amul ba. parce que ñu déglu. dëgg am am jàngal tamit day leer. dëgg sëñ bi. internet yi lay seetaan. boo leen di jàngal. jaaral ci dëgg bi. xam nañ li may wax. waaw yow man bokkuma ak ñenn ñi nga xam ne. waaw mu jàppee ne garab gi garabu hémorroïde la nag te lii du garabu hémorroïde lii garabu lan la. garabu néeg la. maanaam exemple na leer si ay wax day leer. dégg bàyyi ma waxatuma waxatuma kàddu kër gi la mooy mooy régler kër yi nañ dem ci leneen bi mooy yokk awra bi. ki nga xam ne awraam dafa tuuti. mu bëgg mu toll nu ko neex. na ñëw ci dofu maam xalifa mu yokkal ko ko ba mu toll nu ko neex. ki awraam gàtt na ñëw ma yokkal ko ko ba toll nu ko neex. bii moo fi laa ci yem yow noppil waaw bii mooy kaddu kër gi moom tamit ñu ne bitim réew ndox mënta diggu avion dañ leen koy jox kaddu kër gi nag dafay fajaale émorite di fajaale ballottement di fajaale ndoxu siti di fajaale yeneen yu yooyu mooy kuléeg yeneen feebar yi nga xam ne day teree góor di sëy ni mu war a sëyee ba nga xam ne ni fa tabaarakallaahu moom day day jot boppam ni ko neexee kon lii mën lañ leen indiloon muy comme wàllu kër gi dégg tey damaa bëgg wane bii mooy émorite bi ki nga xam ne dafa am hémorroïde interne ak externe kii moo lay faj ci trois jours. am na ñoo xam ne fajoo nañ hémorroïde fajoo fajoo bay bëgg a dee. Ah, ah. opéré bay bëgg a dee laser bi opéré nañ ko bay bëgg a dee mënuñ ko waaye waaye dimbali leen mi ngeen ñëw faju si. su ngeen sonnee ñëw leen ma defal leen ko gratuite. Ah, ñëw leen te yàlla tax ma defal leen ko gratuite. góoru Saalum nga jugee na Saalum ñëw di leen dimbali ñëw leen ngeen jël seen i wàll ci yëf yi. nag duuf na nag yu duuf na ñëw leen ngeen jël seen wàll. hémorroïde moo sonal ñëpp. Mm-hmm. moo sonal ñëpp que feebar la boo xam ne danaa ko indiwaat jur boo xam ne dañ ci danañ ci taxaw waxtaan ci 30 minutes yoo xam ne soo paree da ma xaw ma ne sëñ bi hémorroïde mën na lii. hémorroïde baaxul ci góor baaxul ci jigéen. sachet bi lan la. sachet bii nag cuuraayal dëmm ak jinne mhm. saytaane. Mhm. ak mbooleem loo xam ne lu bon la. Mhm. wala noon. wala koo xam ne day tabax dara ñu ne ko du fi yeggee. nga yor entreprise chaque jour boo ñëwee di fa gis ay xarfu xufaak yu mel noone ngay xëccoo mbir. moo xam suuf la. moo xam pakk la wala yu mel noonee kooku bu ñëwee dañ koy dañ koy dañ koy utloo deru mbaam xus xus karaw ga am luñ ko boole am aaya buñ ko boole boole ko sunguf si jox ko ko hmm. ne ko na ko suuloo ci pàkk ba ñett fan yu bokkul fajar hmm. bu xolal bu àdduna yëpp doon dajee di am këyit yu valable kenn ko du ko tabax ku dul moom moom moom moom pàkk ba mooy wàllum xëccoo suuf day dox xëccoo suuf sunguf si li muy dox moo bari hmm. sunguf si maanaam képp koo xam ne rab da koo jàpp boo ñëwee ñu suul la ko bala ngaa génn bu fekkoon nañ laa jàpp booy jàpp ñu la indi yóbbu leen waaye nag dafay ànd ak parfum bi nga xam ne moo yëngal jamono mooy parfum Youssouf bi. yontu yàlla Youssouf yonentu yëpp à part yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ci waaye jotul sama waaji de ah. <laughs> wa annahu xayru xalqillaahi kullihim yi ki gën ci ki gën ci li bind ki sëñ Tuubaa xool ko ne ko ana xaadimu rasul man maay sami daan laka muxjisaati ahjasa kullal wara dafoo ndake de <laughs> dégg dafoo de ah tagg tàggkatu yonent bi nga nag tàggkatu yonent bi la ngeen koy gis nii daa saay saar waaye tàggkatu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la woykatu maanaam cantaakunu Seex Béthio la waaw ki ki kii tagge tagge na yonent bi nu ne waaw kon lii mooy parfum Youssouf bi uh-huh. parfum bi jaayal mu dëgër jaayul dëgër le déglu bu baax nag jaayal dëgër le jaayul dëgër le jaayul mooy góor goo xam ne bëgg na jabar ba soon di jaayu mënta jar jigéen ju bëgg jëkkër ba soon di jaayu mënta jar na ñëw jël parfum bi heure bu xëy pis ci loxo ndey jorom raay ñetti yoon juróom-ñaari fan ma fu kañ bu mu dëkk nit ñëpp bëgg ko waxuma laa fu mu dëkkul te nit nit fa nga dëkk bu ñu la nangulee rek ñeneen ñi nangul kon ñëw leen ngeen jël ñaar yii kii mooy parfum bayrab yusuf bi kii mooy cuuraayal seytaane li koy accompagner li tax nag chaque jour bu waxee injuste ci lii mooy heure bu ñu defee émission bala ñu teggi suñu loxo dañuy dawaat dem Saalum defaree ji parce que maanaam bu ñuy teggi suñu loxo ñi ko xam ñu dëgg dëgg dañ naan sa maam booy coupé rek téléphone bi tàmbali na. sëñ bi sëñ bi dimbale ma euh, réservé ma ñaar dimbale réservé ma benn parfois bayre bi moom Modou Modou yi moom maam ñi ko ci xam. maanaam jëflante tuddoo kenn ci ay defal ma bayraak defal ma këyit ak nangam maanaam lépp loo xam ne ni xam nga Youssouf dafa commencé woon ci taar bayre jékki-jékki dem ilif nguur jékki-jékki ni ñëpp bëgg ko misra gépp bëgg ko jékki-jékki nag ña ko bañoon nag mujj ñëw ñëw ñëw ci moom jékki-jékki ñoom àndatoon nag nekk ci biir kaso ba ñoom mujj jiite armée bi loolu mooy lan mooy tey lii boo koy laal mbooleem ku la bañoon da lay bëgg mbooleem loolu doon xëcc da lay loola moo lay xëcc si kon nañ dem ñu jàngi xam-xam dégg damaa bëgg ñu insister tey ci ñeenti xam yii ma bëgg yaamay laaj waaye maa lay laaj damaa bëgg ñu insister ci nopp. kon dugal ci nopp ba pare. gis nga alaaji dégg nopp. waaw na sëriñ si wax fii mënuñ ko de. ah nopp daa jafe. sëriñ si dëddale dëddale sax mënuñ ko. dëddale mënuñ ko. Mm-hmm. mënuñ nawtal ba ca des nag moom maanaam jiimuma ko man man naa ko waaye dama ko man ba pare jël kayit yëpp laxañ ba ma ko jàng jee benn ba léegi jiimuma ko man mooy mooy nawtal nit wala rey nit jiimuma ko man parce que maa ngi ciy xalaat bakkanu bakkanu jàmm dëgg daaj xanaa xamoo ba ñuy xale nekk ci daara ja nit da daan tuur ndox rek ñu xool ko def suñuy jat ut bu ñu poqe xam nga bu ñu poqe rawas suñuy tànk tëfli li ñuy tëfli jàng xëcc dëgg tànk dëgg dëgg ko du ndox ma du yegg du tuur ndox nit day nekk ci bool maanaam euh, li li taalibi daan ooyee tëfal maanaam danaa nekk ci bool tëfal maanaam euh, bala ngaa lekk rek mu lekk lépp da maanaam day tibb fi mu tibb rek ngay ngay sëq rek wala mu jël yàq mu dagg ci yàpp bi nga daggaat fa mu daggoon am loo jàng teg sa tànk càmmoñ bi maanaam lam lekk fi lay dugg doo jàll hmm. xam-xam yooyu ba ñuy xale lañ ko maanaam lañ ko mënantu waxuma laak nag yeneen yu des nopp hmm. sëriñ si nañ ko jàngi gis nga wal xayta aleyka mahabatu gi boo ko bindee limab kun hmm. wala nga bind ko limab limab jaysun 313 yaatal miim yëpp dafa métti nag miim gu ne nga dugal turu ko bëgg ci kaw kiñ bëgg ci suuf ba pare jambee ko jambee ko xorom ut ut xobu tamaate boole koog moom bàyyi bàyyi ko bàyyi ko bu mu ba saafara si ñiis nga jël coton yii coton boole koog yëf yi laxas ko jël ko jox ko nit ki mu xooj ko mm-hmm. def ko ci soo sanga ko juróom fan kooku da koy bëgg nu raw na mu bëggee ndayam ak baayam ah. nay tubaab laa la wax nay tubaab nekkal ci entreprise kenn bëggu la nga ñëw bëgg a wooblu sa woojlu sa sa sa patron. ñëwal nga jëflante dafa maam xalifa li ñuy liggéey ci deru nag bu ñuul lañ koy liggéey. dëgg la. dëgg euh, yow maag nga yàgg sa sa sama néegu ñax ba bu lu sama wax ko nit ñi dégg ko. xam-xam bañ koy xam ñun xamantuwuñ ko. sama jur ku ko dàqal lasaraar ci Sénégal. ah waxuma amul de waaye gisagoo ma ko man Cheikh Niass. ak ban nga bëgg ma laajal la ko. gis nga wàllum nopp ak wàllum dëddale. xam nga lu tax wàllum dëddale nit ñu war koo jàngi dégg da ngay am sa sa si coor dem ba koy takk nit jugee fa la ñëw ëpp la doole mbokk yi xool xoolatuñ lañ ca defoon kooka foofa dafay jar xeex mooy dëddale mm-hmm. dëddale ko ak ak ak ak kookee ba nga xam ne mm-hmm. maanaam bu ko gisee ak gis bu tamit lay bëgg loolu dañ koo man mm-hmm. loolu ci daal càmmooy lañ koy bind sant ko ci armeel la ca des ñu liggéey ko yóbbu ko ci àll jeex na du la gisati du la bëggati walla xëccoo maa ci toog xëccoo xam nga luy xëccoo. lan mooy xëccoo. merci alaaji dégg maa yor dañuy xëccoo ndaw si dégg. waaw nga ëppale ma mooy loolu. mën naa ñëw xëccoo ca ba nga xam ne ni maam la nga ma ëppale du feeñ yow mbokk ndaw si du la gisati loxo fay def yow. ku mel ne Adji Sarr ko xëccoo wala exemple. barke Cheikhou Tidiane Chérif moom <coughs> gis nga rus naa àdduna de. <laughs> daa dama lay rus naa àdduna de. rus naa àdduna de. mais dama joxe exemple rek. naa dafa réer de yàlla na feeñ. Adji Sarr man moo réer. ah dégg naa ko démb dafa réer de yàlla na feeñ aji mi ñu waree mu nekk marché seng ngeen defaree. marché seng. marché seng bigin waaye. aji dafa defee woon shopping daa mel ni. marché seng. Oh, marché seng am ngeen gan de. naka ji waa marché am ngeen gan dimbali leen ñu bu ko kenn dóor bu kenn saaga bu ko kenn wax lu lu lu mu ko war a wax sénégalais la comme sénégalais yëpp. xanaa kay dafa def lu sénégalais yëpp kenn lu sénégalais yi defut. Mhm. waaye sénégalais la comme sénégalais yëpp bu ko kenn dóor bu kenn saaga yii yëpp. ay protection la rek mhm. waaw jékki-jékki na réer na feeñ na nangam ñun daal xaji fépp foo nekk yàlla nga fa nekkee jàmm mhm. parce que ñun sa jàmm mhm. mooy suñu jàmm kat ndax dafa am luñ bëgg mu leer liñ bëgg mu leer nag ñun ñoo la ko gën a bëgg mu leer bu fi sa bu fi sa bakkan bu ko sa bakkan uutee du leer ci ñun kon sax fi rek ñun ba yëpp leer incha allah euh, sëñ bi mbirum papier du ma ne sax dama la ciy laaj ndax xam naa ne kilifa nga ci te jàmbaar nga ci tey ko tudd maam xel yëpp dem ci jaaro waaye ku tudd sa kër maam xel dem ci wàllum këyit lew na ay jinne fa nekk yoo xamante ni jinne yu jullit lañ jinne yu tuub yaakaar naa mbirum papier tamit def nga ci jaloore joo xamante ni man mii dem bitim réew xam naa ne ñoom amee nañ la ak cant. alaaji dégg. moodu moodu yi. ñoo la gën a xam ñi man ak ñi manut ne ci dëkk bi. ñoo la gën a xam ñi man ak ñi manut sëriñ ak sëriñ tudd benn. ah li tax sëriñ ak sëriñtu du benn mbiru këyit li ma ci am ci preuve suñ ko doon teg ci taabul kenn naatablewul ne loolu kenn xamul fu mu jëm ci maanaam ci baax ak ci lépp secret li daa fi gi wax naa ko boo ñëwee lew nañ seen xale yu gën tuuti moom la ñu jàngee nàmp boo ko defalee nit ku bëgg këyit nit kuy lijjanti papier ak bu mën moo xam ci réew mi la bëgg a dem moo xam mu ne réew ma bëgg a ñëw moo xam Amérique la mu bëgg a giliñ carte wala mu bëgg nationalité wala yu mel noonee bu jëflante dafa mu am xalifa Ñas incha allah bi hawlillaahi wa quwwati gën saa bëri deux mois laa ko appal mu am li mu bëgg na déposé ñëw ñu jëflante ñu xool nañ maanaam nañuy nañuy ñeme zikkar nañuy ñeme toog ci kurus di faj soxlaay jàmm ñi nañuy ñeme nañuy ñeme di sonn ci soxlaay jàmm ñi nañuy ñeme aussi tamit sarax yi ñuy digal clients yi ñu koy def gis nga sëriñ boo sëriñ ma wax sama mbokk sëriñ si laay may lii sëriñ buy lekk sarax boo xam ne clients yi dañ la koy jox pour ñu pour pour pour nga def def defal leen ko nga koy lekk doo am mujj gu baax mukk ci ay tolof tolof ngay dëkk tàkk tàkkam mboobu ngay def da ngay tàkk di fay rek di tàkk di fay parce que sarax du lu sëriñ war a lekk sëriñ li war a lekk mooy weexalam sëriñ weexalam la war a lekk. weexalam la war a lekk ba muy téeméer yoon. Mhm. bi ci desit mooy client naka ngay jëflanteeg sëriñ. Mhm. yow avant ngay jëflanteeg moom li si ko seetlu woo ko. Mhm. alaaji dégg ñun dañoo foyee seet. ñun dañoo alaaji dégg man dama maanaam euh, seet. man ram li dama ci def lu ne. damay dégg nag ñu naan xool dama lay xool nga xam la dama lay dama lay xool sa loxoog damay xool sa baaram wax dëgg na yàlla yàlla mayee na lu ne. Mhm. waaye man ni ma mayee. mooy damay ram li man. wala fanaanoo li fi mag ñi baxoon ci laa ne man. damay ram li wala ma fanaanoo ko. Mhm. ram li mooy ay tupp tupp la bu fekkee suñ mbokku làkkat yi la. Mhm. bu fekkee ñun ñun ñuul ñii la ñu ngi koy defee ci kayit ba tey ay tomb la nga boolante tomb yi xool bunt bi mu génne moo xam Moussa la moo xam euh, Insa la Omar la nangam la ba ci Mouhamad ga yooyu yëpp boo ko boolee ci ngay soog a xam li nga mën ak li nga nañ nañ ñu dimbale te yàlla tax ñu génn ci mbiram comédien sëriñ du comédien sëriñ du ut buzz sëriñ du comédien sëriñ du ut buzz il faut ñuy bàyyi loolu xel alaaji ma doon ndax ñun liñ yor moo gën a riche ci àdduna bi mais suñ ko xamee suñ ko xamee. bukki bukki bu yabee gaynde ca doxinu gaynde la. kuñ ci commentéral saaga la commentaire waatal saaga la waat sa yow la. Uh-huh. man képp ku ma tooñ ren ba déwén. Uh-huh. te tegoo ci sa bët. ma xam ne xalif ñi sama maam. kon tooñ de wóorul ku ma tooñ ren ba déwén. tegoo ci sa bët. barke xalifa ñes mi ma yaakaar àdduna ak ma xam ne xalifa ñes du sama maam parce que man bi may dugg ci wàllu internet dama ne woon duma ci dugg. billaahi wallaahi watallaahi damay wat ci kaw ma dem ci xabru mam xalifa ba du ma ko fenal def fa dog ba ñuy jox ba ñuy jox ba ñuy jox dem dem sama kër tëdd maa ngi gént maam xalifa Niass du gént gis la parce que wala ku leen gént gis la mu tee benn njaq def ci urus ne ma loo wax ma appuyé mu am waay ko billaahi wala wal kitaabi ne ma ta garanti naa la ne képp ku jug jëm ci sa kaw am ci ndam ah foofu la yem xaagoog fa la yem. ma yow ñu noo du fajar ma dem jàpp ju julli demaat defaat doge ñëwaat tëdd génnaat El Hadj Abdoulaye Niass baayam kon mag ñi ñi ngi fi liñ fi bàyyi ñi ngi fi alaaj Abdoulaye Niass liñ samp mi fi ku samp ku mel ni Mawlana Cheikh Ibrahima baay Niass samp Cheikhu Khalil samp Mam Amad Niass samp Bëkkëri samp taaw bi gën ci taaw yi muy xalifatul xaaji Mouhamad Niass ki raw ñëpp te kenn rawu ko tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam taggee ko nu ne te kenn taggeewu ko nu ne bokk ak yonent bi turu baay bokk ak moom turu ndey nuroog moom tur ne maa ngi dund ak moom it waaye min ka ilayka la moom la muy man danaa naa altine altine lay génn àdduna comme sama na ko sama turandoo defee woon. alaaji dégg. maanaam yàq émission bi euh, ci fii sax fa koy dugalee ci euh, la xew ci assemblée. assemblée fan yi assemblée fan mi ngi neex nag li ko waral mooy kuréel mag yi ay dëgg lay wax assemblée. dégg ma alaaji da nga ne. loo assemblée nationale ay dëgg wér péng la fa kuréel mag yi di wax. kan mooy kan mooy kuréel yi mooy. xam nga yéen waa PSEF am na fu ngeen am am na ñu ngeen fa amoon. waaye APR tamit am nañ fa ay nit. xam nga alaaji dégg. foofu danaa fa danaa fa wàccee yëf tuuti. président Macky Sall. ñu ngi lay ñaan nga delloo ñu njukkal. giñ la delloo ba jox la réew mi. waaye nga delloo ñu dignité gi ñu amoon. ba dénk la ba dénkoon la président assemblée nationale. xam nga ne ba ngay nekk président assemblée nationale de rusoon ngaa jàkkaarloog député yi nga xam ne. xamuñ benn. yow ku ñuy wax naan ku ñuy wax naan ñi ngi ñi ngi woteel ministre xaw ma lan yow ngay wax ci wàllu culture wàllum ñaw <laughs> yow ñuy woteel ministre ministre wàllum budget budget xaw ma lan yow ngay wax ci wàllum ñaw. kuy def loolu. xaw ma nan Macky ki nga ma laaj léegi. jeex na maanaam taxaw naan damay rega jog damay ana ensemble maanaam yow booy rega jo doo ko rega jo sa kër. mais même Diarra Fam Diarra mooy seen yaay di parce que ñi ay débutant lañ di saako wut di wax na dëgg di. Ah. Diarra Fam Diarra la fa ne bu ne leen seen yaay kay dëgg la kële jiitu ci néeg bu la moo la mën a wax ni ñu waaye li ma bëgg ñu xam ko mooy assemblée du bërëbu saagaakaay du bërëbu suubute du bërëbu xaseekaay dafa am ñoo xam ne dañ leen créé ci biir assemblée bi lu dul lan kaay leen ngeen saagawante ak nit ñi ba budget bu ñu fi nar a jàllale coow lay mujjee ñu jàllale ko ci suuf loolu nañ ko wattu li leen Guy Marius Sagna wax nag dëgg joo xam ne war nañ ko bàyyi xel yow am député yoo xam ne zéro zéro zéro zéro zéro zéro octave jàngoo dara xamoo dara benn budget budget bu ñu indi xooloo arrangé na réew mi wala arrangé réew mi député Macky Sall la amul député opposition amul député Sénégal moo am. député yi ñu fal Sénégal ñoo ko moom. nañ xool li ñuy voté Séné arrangé na Sénégal wala arrangé wut Sénégal. ñu soog di ko defal noonu. waaye yow xeex nga Guy Marius Sagna jàpp tëj yóbbu Cap Manuel tëj fu ne nga yóbbu te yàlla ne ko xaaral. barte ñëw jël ko nga ne ko du fayee ko yàlla ne ko nee nga du fayee ko man maa koy fay par force du ngeen ci man dara yàlla jël ko yóbbu ko assemblée nga jël Ousmane Sonko dàq dàq dàq impôt domaine yàlla jël yóbbu assemblée nga jël assemblée dindi élite xaw ma ne parlementaire am jànguma français. wax ko. parlementaire am noonu de wax ko. wax xaw ma ko. man li nga xam ko comprendre. l'immunité de xaw ma lan. ah. immunité de parlementaire. immunité de maa yow kenn xamuñ ko. jàng naa sama fi nga waxee moom laa comprendre. melu na ñu dimbale rek maa yow xam nu nga ne. waaye sëñ bi immunité parlementaire. immunité parlementaire am bi ñu ñu dindi ko. yaa ngi dégg. yàlla na ko kaay danaa la teral danaa la teral fa sa fa sa fa ndey soo nee woon. jël ko yóbbu ko Ziguinchor muy seen njit ñu ne déetawaay yàlla jël ko xotti xolu askan bi dugal ko ci. loolu doyul. Khalifa Sall mi ngi doon mi ngi doon teg fitna. tey booyam Barthélémy Dias moo yoraat maire ba nga nangu woon ci moom. retourné waat ñëw biir assemblée nationale. Uh-huh. waa lii comme doyul si misaalu yàlla loolay doy. waaye sëñ bi looy tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci improtive yi jërë ngeen jëf Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla def président 2024 barke alxuraan. ay ca mbokk yi dégg ngeen waxtaanu am solo wi ñu seqoon ak Serigne Cheikh Tidiane Niass dafa maam xalifa euh, waxtaan la woo xamante ni njariñ la. mais waaw. Médoune. Hmm. saraxu gerte gi. gerte gi def leen ko. saraxu gerte gi. 401 401 saakoy gerte. ministre sport. Macky Sall. ki képp koo xam ne nekk nga ci opposition ak futur opposition Sénégal ñu ñëpp ko moom nañ génn 401 saa koy gerte yi xottuñu saraxe ko incha allah nañ ko def ñi mën a téye kurus nañ téye kurus sëriñ si kàcc nañ téye seen i làmmiñ ñu um waaw muy ñu góor ñi muy ñu jigéen ñi muy ñu mag ñi muy ñu ndaw ñu nañ téye seen i làmmiñ ku ci am looy ñaan na ñaan ñaanal équipe bi Aliou Cissé nag ñu dimbale ba ilimaan Ndiaye nag ñu ko baal mu fubal na ko dugal na nga dugal Iliman Ndiaye am na ñoo xam ne loolu luñ loolu la ñu doyee loolu la doyee